man la Diagne Kara euh, premier vice-président bu ARCOS chargé des finance bon ma nekk ci table ji ak As sunu président ak Pape Demba bi nga xam ne moo yore secrétariat moom ak si Ndour bon ñuy sant nag ñëpp di sant ñi fi daje ñëpp ak ñi nga xam ni amoon nañ yéene ñëw te sans borom dogal na ak si wuñ ñëpp rek ñu leen di sant dafa fekk ni entente Harlem Cosmos dafa juddu xëy na am ñaari at. dëgg la mais bu ñu seetee la ko meññ muy ASC Arlem ak Cosmos kenn mënul wax nawetaan te boole wu ci ah bi yàlla defee ñu bo ñu ñu amoon ay divergence ba yàlla def ñu boolewaat équipe bi équipe bi am tole boo xam ni ak bruit boo xam ni ah, macha allah vraiment en deux ans ñu def lu benn équipe musul def Thiès ci plan yu bari nag ah, bi boole boobu amee nag depuis daaw. ñu gis ni commencé ay injustice commencé dal suñu kaw injustice yooyu daaw mi ngi jëkkee suñu premier match on a joué match de coupe ñun ak Grand Thiès bi ñu joué Grand Thiès ñu gagné ko 2-0 à 18 ñu indil ñu PV bu wane def ñu daan dañu daaneel mu dajeeg jour tam xarit on nous a même pas ñu añ ñu reer muy lu métti. te moonte la ñu wax loolu la ñu daaneele article bi li mu wax dafa leer nañ dañ ni yow su fekkente ni da nga ni lii ak lii ak lii ak lii ak lii xonjom la équipe bi xam na ko ndax def naa ko ci RG waaye nag dafay am loo xam ne buñ ko ci yokkee ni lii mën na cee bokk parce que tey buñ nee sachet ndox bi ñuy def ci ginnaaw est ci ginnaaw góol yi suñ ko ci yokkee mënuñoo xam sachet ndox boobu parce que mën naa nekk ni Saint-Louis mën na faa nekk pratique occulte Thiès suñu ko kii ñu ne waa Saint-Louis bu ñu ko ci yokkee wala waa kenn bu ko ci yokkee wala waa dañ ko war a jox ASC e bi bind leen ko notifié leen ko avant ñuy jouer notifié wuñu ko biñ ñëwee laaj leen ko ñu ni oh, dañ ko jox suñu président zone ñu ñu ñëw fa def appel ñu leen ñun demandé wuñu jox ngeen ko waaw jotuñu ko ñun ñu jox leen ko ñun leen pour pourquoi pas l'appeler auditionné ko ni ko président ndax jox nga ko ñii wala déet ñun ñoo ñoon duñ ko def parce que yónnee nañ ko gis nañ liir na ko ci WhatsApp ñu toog ñu débouté ñu ORCAV ñu dem ONCAV ñu débouté ñu on a mis encore deux cent mille francs CFA parce qu'on a mis cinquante mille francs en appel cent cinquante mille francs ci ONCAV ñu débouté ñu te dara lu dul rek woo président laaj ko ndax li ñu la joxoon jox ko ko ASC bi waaw wala déet yomboon na ils l'ont pas fait ils l'ont ni ñoom daal jox nañ ko yónni nañ ko par lien loolu la loolu ñu wax président bi monté au dugg ci zone bi ci groupe zone bi ni du kenn ku ma ko jox ci ñoom suñu bëggee ba fu ñu ma woo leen ko ñu jël ko ñun su sur clé yóbbu ko tegal leen ko ñu dégg ko ñun ñoom loolu concerné wu leen ñu muñ continuer fubal wax ak sunuy gune suñu premier match ñu joué ak Guéléwaar ñëpp gis la mu demee ñu xeex fa ah, ci fin match ñu gañe leen ba alkaati euh, évacuer équipe bi mais évacuer ñu ñibbi ñu génne PV Guéléwaar mi ñu wax ni ñoom zone bi wax ni ñoom Guéléwaar ñoo tooñ ñu alamaan cinquante mille cent cinquante mille francs ñu amaan cent cinquante mille francs da ngeen yoroon laser ci kaw tribune bi depuis que le mouvement nawetaan am ba léegi kafal lañ mos a déggee équipe bu ñu bu ñu suspendre équipe bu ñu teg daan ci laser on est venu on est ñu waxtaan ak waa Grawul comme ñun dañoo ñëw bàkkee koñ boo xam ne dañu bari coow nañ indi ñu dem ñu fay ñu joué ba suñuy match jeex poule de cinq lañ nekk on a gagné tous nos matchs en senior comme en cadet benn but la ñu encaissé préparé suñu euh, suñu demi-finale parce que on était déjà premier de notre poule à notre grande surprise Daaru ak kii di fubal Gelewaar bi ñu fubalee ci biir match bi match bi am incident eggul ñëpp gis nañ ni ci kaw match boobu tribune daanu na effondré bañu ñu wax ci Mor Dong c'est le président de la sécurité le vice le premier le président de la sécurité demoon na au chevet ci hôpital ci guddi gis la fa am ñu daaneel miiru course ba coow li egg bañ ni espoir def ci dugg. espoir daf ci dugg ba tax ñun dañuy def commission d' ci loolu ndax dañuy wax ni dañuy def commission d' ñu toog di déglu ñu téye zone bi 45 jours sans qu'on jour ñu nous nous qui sommes premiers et que ñun defuñu dara ñu ngi toog 45 jours ñu ci yàbbiwuñ ci te ñu ma jàpp ni xanaa yow mi nga xam ni yaa ngi nawetaan final zonal nga bëgg njëkk laal boo laalee final zonal soo ko dem départemental départemental euh, régional ñoom. ñu ñu suspension bi ba tey ji may wax ak amul na benn kayit bu génn ci ci commission d'enquête boobu ñu def pour pour leeral diggante Gelawaar moomu ak Daaru Salaam la zone lañu ñu mujj wax ni ko na ko atte la zone atte ko suspendre Gelawaar euh, autant pour moi euh, Daaru Salaam un an saison ñu dem ODCAV wàññi un bi def ko saison wala ce qui s'est passé ci ci ci loolu ñu jóge ci ci loolu ñu toog ñu programme ñu hmm? departemental bi ñu programme ñu joué suñu premier match ñu gagné suñu deuxième match ñu joué ak Réveil Réveil nous a gagné au tir au but voilà ce qui s'est passé là loolu moo waral coow li parce que Ousmane Diop en tant que président de l'ORCAV de Thiès de l'ORCAV de Thiès et nekk secrétariat ORCAV moo monté au créneau moo wax ñu dégg ko su fekkoonte ne dañu yemoon rek ci waxul waxuñu ñun xëy na ñu wax ak moom duñu wax ak ñoom dañuy muñ ba déwén ñun dañu tooñ dañu fubal tooñ dañu xam ne dañu tooñ et on reconnaît ko ni on a fauté ku reconnaître da nag ah nu nga ni tooñ nga bon li am mooy lii bi ñu foolee pare am na sunuy gune ñu wax ne dañoo dem Hersal yàq fa def fa lu ñu fa de match bi le 2 décembre la woon le 6 ñu andil ñu PV wax ni suspend nañu un a et demi bi ñu toogee ñun ñi nga xam ñooy équipe bi ñu ni comme suñu waa ko ñoo tooñ nañu bañ a defi appel nañ toog muñ ba déwén wala bu ba suñu neer wàcc ñu xool lañ la ñuy def mais ci lii mënuñ ci dem parce que soo tooñee dangay ngay nangu na nga tooñ ay ñun nangu nañ dañoo tooñ loolu moo tax defuñu appel mais bërki déem boo njaay nag ñu dégg Ousmane Diop génn télé bi mu wax ñeenti kàddu yoo xam ni benn àndu ci ak li am parce que il a dit que ni ce match là était un match de la zone 5A su lañu su lañu su lañu sécurité paire bu zone 5A suspendre ñëwuñu def appel au niveau de l'ODCAV parce que ñu benn sanction bi yokku moo tax ñun te match boobu match ODCAV la c'était le huit ce seizième de finale ah de l'ODCAV de Thiès kon kon ñoom moom miy wax ni moom zone moo ñu suspendre ñu doon bañ a ñëw ci ñoom pour ñoom ñu yokk suspension bi moom xamul sax ñoom ñoo ñu suspendre en tant que président de loolu mu su doon ci coow li ci stade bi la sa serait moins grave mais dañu dem ba ñu jàmbur waa ji ni ko kan moo la waa orchestre ñoo fa dem mun dañ leen gis ñu yéeg ci kaw mur bi biñ leen dugalee dem di tëb di biir te match boobu match nul la série de pénalty la jeexee kon fan la bii bi duggee ba ñu gis ñu yéeg fan la bii bi duggee ba mu gis ñu yéeg beneen a gokk muy ñaar hmm? ñett mu ni jotul lettre bu ko waa arcos andil pour won ko ni ko dañu bëgg ñu gracier ñu le 25 mai dañu waxtaan dañu waxtaan man maa fa demoon Souleymane Ndiaye Brin Modou ngoom bu Jeunesse Sport ñuy seeti Ousmane fekk fekku ñu fekk fa Diawara waa ce qui s'est passé ñu waxtaan ak Diawara bi Brin waxee def tour d'horizon bi kii wax ma ne ko man de Diawara mu ne ah, ma ne ko ñoo duggandoo ci nawetaan sama xarit nga j'ai fait le mouvement comme vous musuma la ñaan ci Arcos. musuma la ñaan ci keneen parce que je veux toujours garder ma dignité ma ni ko suñu équipe nag damaa xam dafa tooñ bu tooñee nag bu sanction dalee ci koom damay nungu sanction bi man dama damay bàyyi nawetaan bi loolu amee parce que j'ai dama rus parce que samay naw la gën te bëgguma ngeen may xool ci yenn bët mais nag bu kon bi dajee waatee mag ñi génn ñëpp génn ñun dañu bëgg defaraat équipe bi bëgg wa yónni ñu mënuma jàkkaarloo euh, ak yow pour wax la li nga xam ne moom la kon bëgg léegi ñu bëggoon xam fan la ñu mën a jaar pour ñu baal équipe bi j'ai bien fu ñu mën a jaar parce que on dañu dañu dañu fu ñu mën a jaar jaaw nañu comme ODCAV moo la aj il faut ngeen bind lettre de grâce au président de l'ORCAV de Thiès Bayla Bass ma ñëw le secrétariat bind ko man en mais ma ñëw woo Ousmane Diop ñu dugg bureau man ak moom ak yàlla ma jox ko lettre bi mu téye ma ne ko joxal ñu ko bay la mooy lettre bi ñu leen wax ñu waxtaan moom nii bu leen bàyyi ndax nawetaan ay xale dañ ko yor ndax bu ñu ko yor yàq ji téye leen bi jaaj bu leen def loolu daal ni ba commissaire sax wax na ni fi mu nekk ñëpp ñuy yàq bu leen indee ñu identifier leen dinañ leen mën a tere stade te léegi da ngeen def seen nawetaan ni mu waree ñu jël lettre bi ma woo Bayla Bayla Baas ni ma maa ngi Kaffrine di lijjanti ay logement pour phase nationale bi mais bàyyi ko foofu ci Ousmane ma jox ko Ousmane au retour de Bayla ma dem fa man sëriñ Modou Ngom mi nga xam ne chef religieux Ibrahima Ibou Sarr ak Moussa Ndiaye Ibou Sarr délégué de ak Moussa Ndiaye bi ñu demee fekk ñu fa Bayla Bayla génn ñu woo ko téléphone ñu wax ak moom mu ni Moussa Ndiaye li ngeen di wax de eh, jot naa lettre bi man maa ngi ciy jëm sama kenn ku lay kattan mais mënu ma leen promettre dara parce que xaw ma lii fii dafa xaw a doy waar mais nag lump su ma ci man sama digganteeg yow naa ko def kon kooku jot na lettre wala jotul lettre te lettre bi ma tegoon ci loxo Ousmane Diop mu Ousmane Diop mi jotul lettre kon kooku jot na lettre wala jotul lettre baylaan may baylaan dina ko dégg Ousmane Diop dina ko xam nga li may wax xam naa ko ñu retourné ñibbi ñu dem ba ci ginnaaw suba ga suñu xarit bii di na Ndiaye am benn xaritam bu ko suñu problème équipe bi mu ne ko te ndax Amadou ku baax la day day day dimbale Amadou moom nag su ngeen fa demee xëy na man la leen a ñaanal gaay yi ñu jël oto di seeti Amadou Kane ñu ñëw ci Moussa Ndiaye ñu ko Moussa kat ñun dañu bëgg dem seeti Amadou Kane mu ne man de mënumaa dem ci Amadou Kane ndax bay la baas sama promotion de classe te wax naa ak moom jox naa ko lettre bi jox ngeen ko lettre bi promettre na ma li ma promet du ma ko jéggi dem ci keneen moom sax à lui moom sax mu woo bay la baas wax ko bay la baas ko d'accord mu ne ko damay booy Dakar yaakaar damaa ànd ci loolu kon kay buñ nee moom ñu dem bi ñu demee fekk Amadou Kan toog man ak as ñoo ànd ak Sidi Ndour ak kii Matar mi xaritam boobu ñu dem wax bay la baas wax foofu Amadou leen indi ñu ne ko Amadou ñun dañoo tooñ bëgg ñu baal ku ñu ñu baal mu ne ah da ngeen te ngeen doon tooñ ma ne ko sii dañoo tooñ kon dañu bëgg ko ñaanal mu ne ah yaakaar du fi añ leen ba suur naan ba màndi comme nu ngeen da ngeen tooñ dinañ leen baal ñu après bi ñu añee pare mu laaj nu mu demee ñu expliqué lépp. mu ne ah tooñ ngeen de lu tax def leen appel ma ne ko amul de man de ma merewoon équipe bi balax lu ma def appel amul lu bu ëllëgee bu defati loolu jaawar euh, léegi ñu pare ci loolu mënuñu lu tax def bu ngeen def lu tax bu ngeen defoon appel def saisine tey ji loolu bu ñëwee fii ci ONCAV xëy na mën tey liñ ciy man bokkul ak bu ñu def comme waa Thiès lañ tey dañuy demaat di ñaani waa Thiès kon xam nga loolu lu leer la amul kon mais ne mais li ñu wax dem leen seen seen yaakaar du tas fii yaakaar ta fi tase. ah ñu ni quoi ah, nawetaan dafa am lu mu laaj wut ay jour te démission yi tàmbali na te dañoo bëgg tey mu ni téye leen seen i jour contenez vos vos actions téye leen seen i jour ñu ñe defar suñuy maillot di jaay organiser suñuy simb organiser suñuy leneen ak leneen def suñuy activité fay suñuy jour parce que c'est le président de l'ONCAV quand même c'est une voie autorisée moo ñu wax loolu bi ñu ñibbisee ñu toog ak adjudant Ngom mu ni ñu yéen point bu ngeen demoon fa la commissaire ci am nekk non commissaire commissaire Thiam ñu woo ko ni ko ñun de dañoo amoon dañoo ñëw kër Amadou Kane Amadou Kane sama waay la dinaa ci jàpp moom tamit mu toog ñaan Amadou Kane Amadou Kane promettre ko mu promettre ñu lii mooy kii bi mais ñun amul benn yoon boo xam ne dañu bind lettre adresse ko ONCAV bi ñu ñëwee nag ba affaire bi des ay 10 jours 15 jours ci lañu waa ONCAV woon ni seet nañ seen lettre gra seen lettre de grâce bi mais jotuñu ko gisuñu ko fenn ci lettre de grâce mais da ngeen di bindaat lettre ñu bindaat beneen lettre ampliation ODCAV ampliation ORCAV ampliation ONCAV kon Ousmane Diop su ne ci WhatsApp la ko jote ñun de bi ñu dem ci amoon kon yóbbuñu loxo kese lañ fa yóbbu ñaan ko mu ñaanal ñu defe naa ni lii mooy la lii mooy fay su nee nag match bi li li ñu dem r moo tax sanction bi gën a lourd naa loolu la wax télé bi mhm. loolu la wax mhm. li ñu def instant moo tax sanction yi lourd mhm. te ma xamal ko ni ko ci teg texte nawetaan su fekkee ñu dañu dem r yàq fa R100 def lu ñu war def c' est le comité directeur de la l'ODCAV ci enquête commission d' la mën a statuer ci loolu kon mu kon li mu wax loolu amul ndax ñun sécurité départementale moo ñu atte te li ñu atte ci ñun la ca stade ba la fa xew dañu joué match bi jeex arbitre bi sifflewul penalty booy yi wër arbitre bi ni dañuy door arbitre bi mag ñi di defar ñi di jàpp alkaati yi jéem jéem jéem suttiwul ay jeu de pierre commencé am alkaati yi door seen lacrymogène wut yoon yóbbu alkaati yóbbu yóbbu arbitre yi autant pour bi ñu yóbbu arbitre yi am na booy dem instant su ma ko niyee de loolu moo nekk. mais du ci ay fait de match match bu am bii dugg ñu tëb dem ersan no non no non après bi ñu yóbbu arbitre bi nga xam ñu mënatuñ jot ci arbitre bi ci la booy frustré dem foofu match bi match 0-0 la ñu gagné ñu tir ko a encaissé qu'un seul bii ba bi ñu koy encaissé du contre équipe boobu léegi loolu nan la mën a amee moom xamul la xew ersan defu ci commission d'enquête defu ci dara du odekaamam kenn defu ko ci mu bëgg ni loolu moo tax parce que dañoo kaayase ay kii ay oto ay nangam nangam lépp lu fa mënti am ñoom mënuñ ci am tenant ak aboutissant ndax defuñ ci commission d'enquête. man maa ngi tudd dembaali Ali Fall ñu may woowee ci daaf maay le secrétaire administratif donc war euh, wax nag ci benn point bi nga xamante ne moom moom lañ mujj a posé mooy déjà année 2023 bi te à poste football mais aussi perspective yi ñu am tamit ci dans le futur mais avant cela rek dafa amoon loo xamante ne nii sunu sunu waa ji sunu vice président daf ci am ay point yu ndaw yi mu koy fàttali que la lettre de grâce bi ñu bindoon ba adressé ko bi ñu ko adressé ñoom seen bopp ñoo ñu wax ne ñu la lettre de grâce ñoom mu mënu mënul dem mënuñu gracier dañ bind lettre d'admission te au niveau de la la Dekar dañ ko defee. kon ku lay wax ne da ngay bàyyi lii après nga bind lii bu ne la yëgulee waxul dëgg c'est ça les les faits tamit loolu mooy ay réalités yi nga xamante ne moo fi nekkoon. la lettre d'admission aussi bi ARCOS administration bind la xam l'administration elle est écrite. bi ñu bindee boobu ba léegi loolu dafa important parce que bi ñu bindee le 25 la ñu bind suñu missive jusqu'à présent tey ji ñu toog di wax amul benn réponse bu am te les ASC e ñoom ay composante yu nécessaire la ñu indispensable sax par rapport ak euh, mouvement nawetaan kon donc minimum de respect par rapport aux ASC e dafa am solo su la bi nit bindee même bokkutul baax sax nga fay ko léegi nag comme ni ñuy wax nii rek ce qu'on a débuté ARCOS comme 2023 du football tamit mais terewul association sportive et culturelle la côté culturel déjà dañ koy ñëw côté sport dafay ñëw sport de football kese nous allons organiser des séances de lutte dafa bokk ci sport. nous allons aussi organiser am benn buy am d'ailleurs samedi bii di ñëw fii au niveau au niveau de l'école lañ koy defee dañuy organiser aussi des activités yoo xamante ni des journées d'investissement humain yoo xam ne day xew ci koñ bi ay lépp loo xamante ni takk-takk la ak kii mais sensibilisation aussi des jeune par rapport à certaines mais aussi par rapport ak faits nga xamante ne moom la ñuy ajee mooy la violence dans le monde sport ci côté sportif tamit dañuy organiser ay tournois am nañ fi ay mémorial yu ñu war a organiser le mémorial Cheikh Libey nga xamante ni fii grand joueur la fi woon dañ fi nekk di football def lu nekk yàlla jël ko fi tamit ñu ko war ko fàttaliku ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni daal moom mooy yi nga xamante ne moom la ñuy prévoir pour année bi aussi mouvement navétane ASC yi aussi ci waa koñ yi la war a jariñ dañu war a organiser aussi des des des colonies de des colonies de vacances des cours de vacances moom mooy ci fin d'année bi te on a saisi les enseignants dernier mois bi avant les vacances on va organiser ces cours de vacances pour jàppale xale yi ci biir koñ bi après bu ñu paree ñu on les organise soit en excursion wala benn sortie pour que bëggal leen ñu ñëw daal mooy ARCOS moom mu ngi fii déwén incha mu ngi préparé wu financièrement tamit pour devenir beaucoup on a dépensé sur les deux ans plus de pratiquement 30 millions te équipe du ñu fi ëpp doole te nous allons apporter la réplique nécessaire pour leur montrer pour leur dire que ne en réalité ils ont commis de écarter boo xamante ni ils devaient pas l'écarter loolu daal moo xamante ni mooy perspective bu année bi daal